asalaamaaleykum daleen ak jàmm ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool tey jilee dañoo tiit jaaxle ndax variant micron bi nga xam ne ganesi na suñu réew dañu koy dóor ak Sud Quotidien mu sekk waxtaan bu yaatu yaatu ak Demba Kandji yëkkati na ay kàddu leeral bu baax a baax wàllu médiateur de la République mbirub Khalifa Ababacar Sall ak bu abre waxtaanee it nan la ñuy def ba yoon bi suñu réew moom boppam ëttu yéenekaay bu groupe Sud Communication di ñu fàttali ne moom Demba Kandji nag nekk ci jamono ji médiateur de la République Mbourik ab magistrat bu ràññeeku la def na liggéey gu am solo ci justice su Sénégal mu liggéey ci ñeent fukki at balaa ñu koy tabu muy ministre conseiller bu njiitu réew mi ci ñeenti octobre bu ñu weesu nag la ñu ko def médiateur de la république si seen waxtaan bi nag Demba Kandji bàyyiwul dara moom doomu Thiénaba Gare bile mi ngi dal bu baax a baax ci ñi nga xam ne daal dañoo tàmm di xarab ay liggéeyam nee na nañu ko dégluwaat te gën saytuwaat li mu jot a médiature bi si boppam daal du foowukaay li mu bëgg mooy gën ko dëgëral muy xamle it ni bu nit ñi bëree ay sañ-sañ nag day tax ba jalgati yoon fës lool ñu des ak waa Sud Quotidien bi jox it kàddu professeur Penda Mbow muy waxtaanee delloo si poste premier ministre si mim réew Penda Mbow nag def ci ay ndénkaane yu am solo moom professeur bi nga xam ne moo doon ganub émission objection si rajo ci FM démb ci dibeer juróomi fan ci weeru décembre moom it nga xam ne moo fi doon ministre bi ñu dénk wàllu caada nee na daal lenn rek ko métti muy poste premier ministre bi nga xam ne dañ ko fi jëlee woon ñu des ba tey ci wàll politique ak les échos bi waxtaanee décision bu ministre bi ñu dénk wàll biir réew mi jël ne day soppi mandarga coalition defar sa gox aadama Faye mer ba futt ne du ci dal teg ci nag di araftu bu baax a baax muy xamal ministre bi nii li nga wax yëpp dañ koy teg ci suuf te it danañu dem fi mbaxane doonee benn ñu jàll ci beneen ponk bi nga xam ne bokk na ci bi gën a soxal ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool tey jilee jëm ci màndarga bu yees bu covid bi nga xam ne nee na saraax suñu réew ñu door ko ak wàllaas variant le dugg na suñu réew gane si nañu IRESSEF ak waa Institut Pasteur ñu ko xamal ñoom waa IRESSEF fekk nañ ko ci kenn waa Institut Pasteur ni doomu jàngoro boobu boobule di Omicron fekk nañu ko ci ñaari doomi aadama ñu des si mbir mi ak tribune muy ne lii daal xibaar bu neexul la ji tolluwaayu mbas mi suñu réew Omicron ci boppam daal mooy jël ay kaakam ñëw samp si suñu réew ak ñaari doomi aadama yoo xam ne daal xam ne nañu am nañ ko ci ndakaaru kenn ki góor la bu am ñaax fukki at ak juróom Scat Urbam la ne woon ki ci des nag di ab soxna boo xam ne am na ñaar fukki at ak juróom ñett boo xam ne it ci benn lotel ndakaaru la dëkkee woon moo tax laas daal ne bu yeboo rek ñu delloo solaat suñuy masque waa réew mi quotidien di ko feelu nii jot na nag Sénégal gën a ubbi ay bëtam gën a taxaw temm ngir jàkkaarloog omicron bi lee moom di samp ab laaj ndax omicron bi nag jar dal ñu des ak mbas mi nga xam ne daal dafa nërmeel bu baax a baax wàllu tourisme bi ak critique bi ñuy xamal ne Doudou ginnaaw gi mu defaraatee piste ak aérogare bu Cap Skirring tax na daal ba roplaan yu njëkk yi jógee ci biti réew ñëw wàcc file suñu réew Sud Quotidien mu ñuy xamal ni ginnaaw ñaari at yoo xam ne daal l'activité yi yënguwuloon le ci Cap Skirring ak ndoorteelu saison touristique bi daal Cap Skirring dana dundaat bu baax a baax ñu waxtaane nag setal bi nga xam ne moom la ñu bëgg a setal mbeddu ndakaaru yi ak Macky Sall ci biir le soleil président de la république ni ñi nga xam ne ñoom lañ dénk wàll wi bu ñu nooyal benn yoon njiitu réew mi ci gaawu gi ñu génn la dooraat ba sub setal ministre Abdoulaye Seydou Sow nag dañu ko soññ mu fexe daal ba liggéey bi jaar yoon mu liggéey ceeg waa UCG ak takk der yi ngir ngir dakaar daal am xam kanam boo xam ne moo dàq bi mu am ci jamono ji les échos bi ñu xam ne daal kii dafa yokk fit ak doole Abdoulaye Sow l'enquête moom jagleel pàcc bu yaatu yaatu liggéeyu inspecteur yi nga seen liggéey maanaam leeral xajam na bu baax a baax ndax dañoo am ay jafe-jafe ci seen wàllu liggéey l'enquête ni daal ñoom lañ gën a ñàkk jox gëdd ci administration bu Sénégal libération moom di ñu waxtaanee Tahirou Sarr ak bërëb bi la ñu tuppee Front des Mamelles jur na coow bu tar suñu réew le soleil ak réew mi ñoom taani ñu élection tabu président bi amoon ca Gambie ne aadama Barrow daal mooy nekkaat président Gambie ci juróomi at yi ñu jëm looloo tukkee si mbañ gàcce gi le soleil di ñu xamal ni vote bi daal lépp jaar na yoon te ñu bëri ci askan wi génn nañu ngir watee ji wante nag donte Adama Barrow am na ci ndam bu yaatu yaatu ci beneen wat ba nag am na ñoo xam ne daal ñu ngi cee xëpp suuf bu baax a baax laas moom di ñu waxtaanee juróom-ñaareelu forum bu ndakaaru ñu jagleel ko wàllu jàmm ak kaarange bi nga xam ne tey jii ci altine gi lay door ca jam ñaajo njiitu réew mi nag fexe na daal ba ay ponkal ñëw teew ci ku ci mel ne président bu Afrique du Sud di Matarela délégation bu Niger ak bu Guinée Bissau it dinañu fi teew keneen kiit ku nar a teew ci boobu boobule ndaje mooy ministre bi ñu dénk wàllu Europe ak affaires étrangères ca France muy Jean-Yves Le Brion ñu jeexale koo tàggat yaram door ko ak waa SAD waxtaane ndi bi nga xam ne daal kenn xàmmeewu ko woon ni équipe am di jàkkaarloog West Ham ci weeru décembre bi ay jafe-jafe la ne SAD it waxtaane yeneen gaynde nag yoo xam ne jeexital ay bis bi daal def nañ ay jéego yu am solo ku ci mel ni Habib Diallo bi nga xam ne moo raw Mané Mambaba Dunkara ak ku ne ci ñoom nag dugal nga ñaari bi sa biir club ñu waxtaanee wàllu lomb ci diggante Siteu ak Papa door ko ak waa sunu lomb ni combat wu gàcce la ndax amul sax verdict te it deret tuuru na Papa Sow daal dafa am benn ndënd bu ko gaañ ci jébi Siteu ni daal Papa moo gaañ boppam mbir it soxal bu baax a baax waa bës bi la jour ñu ne daal verdict bi verdictu deret bu tuuru la dafa Gueye nit lii daal kenn nu ko nangu si Sitor nduur nit amul verdict benn yoon ci jamono joo xam ne nag Max Mbargane nee na ndam bi nag Siteu lañ ko waroon jox lii moo gunoon a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëyee ndool ñu yëndoog jàmm Bonjour. Les cas testés positifs aux variants Omicron au Sénégal intéressent et inquiètent la presse du jour. Nous démarrons par Sud Quotidien, médiature de la République, affaire Khalifa Sall et Abré et indépendance de la justice, Demba le silence. indique le quotidien du groupe Sud Communication qui donne la parole au médiateur de la République. Brillant magistrat, le juge Demba Kandji a marqué d'une empreinte indélébile la justice sénégalaise. Excellent procédurier, l'homme a rendu justice pendant plus de 40 ans avant d'être nommé ministre conseiller du président de la République. Depuis le octobre, il assume une nouvelle fonction de médiateur de la République. Du procès Khalifa Ababacar Sall à celui l'enfant de Thiénaba Gare affiche son intime conviction et renvoie ses détracteurs à ses considérants. Qu'on me relise, ton plusieurs fois Demba Kandji qui, visiblement depuis sa jeunesse, avait pris l'option de devenir juge. Il déclare: La médiature n'est pas un gadget institutionnel. Je la veux forte et accessible. Et il ajoute: Trop de droits crée l'injustice. Restons avec Sud Quotidien qui donne également la parole à professeur Pendembo qui exige des attributions très claires relativement au retour annoncé du poste de Premier ministre. Le professeur plaide pour une stabilisation définitive du poste de Premier ministre dans la nomenclature institutionnelle nationale avec des attributions très claires. Invité de l'émission Objection de la radio Sud FM hier dimanche 5 décembre, l'ancienne ministre de la Culture qui dit avoir regretté la disparition du poste de Premier ministre aller même plus loin en proposant un rééquilibrage des pouvoirs au sein de l'exécutif entre le président de la République et son premier ministre. Parlons toujours politique avec les échos, avec cette décision du ministre de l'Intérieur de changer les couleurs de la coalition des Farsagor. Adama Faye déchire la décision et menace Nous n'acceptons pas votre arbitrage et nous allons nous référer aux juridictions compétentes, lance Adama Faye. Intéressons-nous à présent à l'autre sujet qui jour, avec trois millions au Sénégal. Omicron, ce nouveau variant de la COVID-19, fait son entrée au Sénégal, informe l'AS. l'IRSF et l'Institut Pasteur de Dakar ont respectivement découvert un et deux cas testés positifs au variant Omicron du coronavirus. Remettez les masques. Conseil LAS. Mauvaise nouvelle sur la situation du Covid-19. Omicron dépose ses valises au Sénégal. Renseigne Tribune. Deux cas enregistrés à Dakar. Il s'agit d'un homme de 25 ans ayant séjourné à Scat Urbam et une femme de 28 ans qui a séjourné dans un hôtel de la place. Avec ces trois cas positifs détectés Réumi Quotidien est convaincu que le Sénégal doit redoubler de vigilance. Au moment où Tribune s'interroge, faut-il avoir peur de ce variant La pandémie qui a durement impacté le secteur du tourisme, justement réhabilitation de la piste et de l'aérogare, Doudouka reconnecte le cap aux vols internationaux, selon Critique et selon Sud Quotidien. Avec ce lancement de la saison touristique, Cap Skirring reprend vie après deux années de léthargie. Parlons à présent du désencombrement de la voie publique avec Macky Sall qui exige dans les colonnes du Soleil la fermeté. Le chef de l'État a donné samedi le ton de la reprise du Bessoub Setel. Le ministre Abdoulaye Seydou Sow est invité à utiliser les moyens de l'UCG et des forces de défense et de sécurité pour rendre Dakar respirable. Macky lance la seconde croisade contre la saleté, intime conviction de l'enquête. Restons avec l'enquête qui consacre un dossier à l'immersion dans les élections internes, la transparence bâillonnée. Les inspecteurs internes sont confrontés à des blocages structurels. Les inspecteurs sont les parents pauvres de l'administration, souligne l'enquête. La présidentielle en Gambie, on en parle avec le Soleil et Rewmi. Adama Barrow est vainqueur de cette présidentielle. Il est réélu avec 53,2% des suffrages. Il rempile pour un mandat de 5 ans, un scrutin calme, apaisé, le tout dans une forte affluence, constate le soleil. qui signale que c'est une victoire large pour Adama Barrow, mais contestée. L'AS nous parle du 7 forum de Dakar sur la paix et la sécurité qui s'ouvre ce jour à Diamniadio. Macky Sall décroche de gros pontes dont le président sud-africain Matarella Cyril Ramaphosa, ainsi que le président de la Guinée-Bissau et du Niger, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France, Jean-Yves Le Briand, prend part également à ce septième forum de Dakar, au moment où Libération s'intéresse au flanc des mamelles de Taïroussard, les 6639 mètres carrés d'un scandale. En sport, Sat le quotidien du sport s'intéresse à Mendy qui est en difficulté en décembre. Il est méconnaissable contre West Ham. Sat nous parle également du week-end des Lions avec Habib Diallo qui dépasse Mané alors que Mambaba, Dunkara et Sissé voie double. Parlons de lutte à présent tout d'abord avec Sunu Lamb. Cité Papa Sow, c'est le combat de la honte, un sans verdict dans un bain de sang. Le confrère signale que le front de Papa Sow a été ouvert par un tam-tam. Cité accuse Papa Sow, il s'est blessé tout seul. Combat Papa Sow Cité son SANG verdict selon Busby le jour. Toujours au chapitre des réactions, Tafagé déclare C'est inadmissible. et pour Sitor Ndour, Papa Sow cite est déclaré sans verdict, alors que pour Max Mbargane, on devait donner la victoire à Siteu. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.